parce que ñëpp mënuñoo ñëw ci meeting yi dem saafonteeg waa Louga waxtaan ak ñoom ñoo ngi nuyu waa dëkk bi yëpp di nuyu kilifa diine yi fi ne di nuyu kilifa aada yi di nuyu suñu mag ñi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte ñëw fekkee jotaay bi ak heure biñ ko def di féliciter di remercier jeunesse bi parce que ñëpp xam place bi nga xamné jeunesse bi am nañ ko ci suñu liggéey yeen ñëpp xam ngeen ni dañoo jonkontol dañoo jànkonteel ak système bu doy war système bobu nak likoy caractériser bëri na dinaa ci dellu ci ci yenn yi waaye bokk na ci li koy caractériser mooy li tubaab di wax lâcheté mooy miikër lii am léegi rek instant instant incident bu ndaw bi wane na ko mooy ay nit lañ yoo xam ne balaa ñuy mën a balaa ñu lay mën a ñeme rek nga wane gannaaw li tubaab di wax li tubab di wax poignardé dans le dos mom rek lañu ñëmé suma ko waxé rek dang koy dugal au sens figuré comme au sens propre ndax tok fekk ay yaram yu dajale sen dajé di waxtaan wuñu ngaay wuñu nga dem laqatu ci lendeum ba di force xeer di sanni lolu lâcheté mënu ko wess lâcheté mënul wess nga bàyyi ba 2h du matin daal di dem def irruption ci siège jambour jàmbur fekk fa ñaari xal rek ñu fay fanaan ak ben agent de sécurité nga indi fa fukki waxambaane ñu yor seeni jasi ñew di saccager siège ba lolu ci lâcheté la bok lâcheté mënul wess nga dem ba liñ la muy république ndax dara gënul mandargal république nos forces de défense et de sécurité nga détourné di détourner des missions politiciennes naan leen dem kër di réclamer ay fiches de parrainage loolu lâcheté la lâcheté mënul li barki ndar bet militants ñu nekk en infériorité numérique nga yónni say mbër ñu dem di leen dóor di leen gaañ wala di leen attaqué ay jaasi waaye lâcheté it ci verbalement mënul wees saa suñu xëyee moom Macky Sall man dama koy tudd wax ko ko moom moom xam nga sénégalais yi dañ naan sénégalais yi xamul rawatina nag suñu mag ñi sénégalais yi xamul dañ naan moom de dafa yaru dafa noppi waaye bu ñu jaawalee yaru bu ñu jaawale yaru ak li tubaab di wax sournois xawma ci olof mortala waaw xanaa mii kër la ndax yow mën ngaa bañ a saaga waaye bis bu dee nga yebal nit moo xam politicien la moo xam journaliste la moo xam lu mun ti doon nga ne ko demal saagal ma loolu dafa boole mii kër ak lâcheté ndax nit looy def da nga koy ñeme assumer ko mais yónni say nit ñu nekk suba ba ngoon jot di saaga nit ñi boo génnee di jaay yaru yarulu loolu dafa boole mii kër ak lâcheté